du projet du département de Matam mais à notre surprise nous avons fait, mu ñëw jël le ministre de la justice maître Malik Sall alors que nous des des accusations non fondées dafa koo yónni Farba Ngom moo ko yónni di ko wax ne demal attaquer Malick Sall alors que Malick Sall deful dara à part c'est faux c'est faux de la République c'est faux leader président de la République moo ko tax a jóg dafa ñëw di leader président de la République Farba Ngom nag tey duñ ko bàyyi dootuñ ko bàyyeeti dootuñ ko bàyyeeti di attaquer Malick Sall parce que Malick Sall par euh, président de la République dafay liggéeyee boo gisee samedi passé dafa réunir ñu defoon liste parallèle yëpp de Malick Sall réunir indi leen ci wetam di liggéey ak moom pour jàppale président de la république ci tànk yooyu la Macky Sall mais du nangu yore Farba Sy moom di ko jënd Farba moom dafa jënd lu wer ko Sall jox ko ay per jom pour mu attaquer Macky Sall dootuñu ko nangati dootuñu ko nangati yore Farba Sy mais désormais yore Farba Sy nekkatul coordinateur de la Cojer nekkatul coordinateur de la Cojer jël leen jël leen jël leen coordinateur de la Cojer désormais yore Farba Sy il va le tuer il le tuer il le tuer mais il le tuer c'est pas c'est de la départementale de aujourd'hui on était pour pour assister un point de presse je suis suñu coordinateur de pharmacie pharmacie a été organisé au nom de